dafa am alerte boo xamante ni Bijou si euh, daf ko bëgg a jagleel euh, sénégalais yi ñun ak yéen puisque euh, bëri na ci ay produits yu ñuy faral di jóg jëfandikoo sans pour autant ñu xam yi nekk ci biir mën na gaañ wala mënul gaañ bi ñu mujjee dégg ci di divers yi mooy ki demoon di jënd produit pour rey teeñ loolu mujjul rey teeñ bi mais moom la mujjee rey mhm. donc on parle de utilisation produits toxiques yi actuellement fii ci Sénégal euh, surtout ak danger yi nga xamante ne moom moo ci am Pape Cheikh li ko waral mooy xale bu jigéen boobu ñàkk bakkanam fële ci Saint-Louis doon wuyoo ci turu Mame Mariane Fall amoon 17 ans comme ni nga ko waxee moom benn jaaykat moo ñëw ci kër gi euh, am benn produit bu mu ko jaay ci verre la ko ko nattal ne ko 500 francs lay jar donc benn marchand ambulant léegi nag bi mu ko jëlee utiliser ko ba guddi euh, biir mu mu yee seen waa kër ne leen biiram day metti donc ñu jéem a xool nuñ koy joxee garab mais mu tëdd jékki-jékki commencé di wàccu <coughs> yëf yi gën a metti ñu yóbbu ko hôpital bi ñu ko yóbboo euh, ci ci hôpital euh, yaayam ànd ak moom Satou Sané yóbbu ko hôpital Ousmane Ngom bu leew na ensuite ñu yóbbuwaat ko hôpital régional bu Saint-Louis def na fa 15 jours mais def na deux jours avant ñuy xam ne li ko jàpp c'était en rapport ak li mu def ci bopp bi ndax dafa jël produit bi def ko ci bopp bi guddi gi tëdd nelaw ak moom donc euh, bi mu toogee médecins yi ñëw nañ bi ñu ko xoolee la ñuy posé ay question ba laaj ndax dafa am lu mu def ci bopp bi ñu ne leen waaw dañ ko mujjee sax watnel pour wàññi toxicité bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir euh, yaram bi ba nga xamante ne finalement mënatul woon sax nooyil boppam dafa nekkoon dans le coma nekk sous respiration artificielle pendant 15 jours si lay soog a décédé euh, lan moo tax ñuy waxtaanee lii mooy produit bi sax bëggoon nañ ko indi mais médecin bi moom moo ko yore ba léegi pour xool lan moo nekk biir ba mun a jàpp xale boobu mais dafa am produits yu bëri yoo xamante ne fii ñun dañ koy jënd ci mbedd bi mu nekk ay produits chimiques du ñu xam composition bi du ñu xam ñaata temps nga ko war a utiliser du ñu xam naka nga ko war a utiliser ñu jël ko rek gis kiy jaay ñëw ne la moom jàngul chimie du médecin ñëw ne la produit bii day rey tee ñëw nga noo ko jox la mode d'utilisation yow tam nga jël ko utiliser ko mu mun la rey te produit chimique yooyu mun nga koo respirer mu dugg yàq sa biir yaram loo xamante ne boo moytul li dal Mariama mi dina la dal dañ ciy faatu ndax soo ko respirer sa voie respiratoire yi lay dugg muy poumon muy fépp fi nga xamante ne fa ngay nooyee yàq li fa nekk yépp empoisonné la te bu fekkente ne teeluñu ko xam ba defaral la lavage ak yu demee noonu mun nga ci ñàkk sa bakkan am na yoo xamante ne jarul sax nga koy nooyi na laal sa yaram rek mooy euh, yàqal na la lu bëree bëri dangay gis sax ci euh, boîte yi même boo munul liir di nga gis parfois euh, comme image yi ma yónnee par Samba ñu defaral la ay image defal la tedd de baare ko wala ñu defaral la ay poumon wan la ne ki lii dafay dangereux pour sa santé wala ñu defaral la li nga xamante ne produit produit inflammable la bu gaaw a tàkk la yëpp am na ay image donc souvent bu ñu dee jënd ay produits il faut ñu am boîte bi nga xamante ne moom moo ko def même boo munul lire nga dem woo koo xam ne mun na liir mu liiral la danger yi ak précaution yi produit bi fan lañ ko war a utiliser yan précaution lañu war a jël buñ ñu koy utiliser est-ce que war na laal suñu yaram est-ce que war nañ ko nooyi est-ce que war nañ ko tàngal yooyu yëpp dañ ko ciy dul jël temps wu lire ñu mm. jéem comprendre produit bi comment ça se passe lii nii yëpp ay signes la yoo xamante ne même boo munul liir tey boo ko gisee ci benn produit muy produit yi ñuy reyee mbóot li ñuy reyee jinax yi ñuy reyee kaña yi ñuy reyee teeñ lépp li nga xamante ne dañ koy utiliser muy produit chimique di nga ko gis ci ginnaaw bu tey bi di nga ko gis ci étiquette bi boo ko gisee defal attention même boo munul liir nga woo ku la dimbali mun la liiral wax la ne lii kat c'est boo ko utiliser teg ko sa yaram wala boo ko respirer c'est dangereux wala bu dee kaw kaw nga comme man ñun xam nañu ni loo gis mu rouge rek danger la mhm. parce que dañ koy taasu rouge danger la tubaab di ko sàkk da ko ragal rouge danger la xanaa leer na man noonu laa ko jàngee leer na moom nii laa jàngee alerte de rouge danger la tubaab di ko sàkk doo ko ragal rouge danger la et quand tu vois du rouge même sur un truc boo liirul xamal ni danger la xonk baaxul tubaab bi <laughs> ko sàkk doo ci profité tubaab bi ko sàkk doo <laughs> mais juste pour jàngale voilà jàngale ma dugal ci affaire bi mais il faut aussi que bu fekkente ne da nga soxla luy rey teeg ñun yàgg nañ dégg genre da ngay def bleu wala da ngay def omo sa bopp musóor ko doo xam loolu destination bi du yaramu nit dañ ko jëloon pour raxas ci ay karo raxas ci ay ndab dëpp ko bokkul loo xamante ne dañ koo def ci yaramu nit soo ko defee amaan na conséquence yoo xamante ne dina ko am yow du la neex te produits chimiques yu bëri dafa dafa dangereux pour nit ki dañ koy boole souvent ci li nga xamante ne moom la ñu utiliser utiliser muy rey lépp liy dox lu ci mel ni chlore wala monoxide de carbone wala cyanure de sodium hmm. yooyu yëpp dañ ko war a moytu boo leen jëndatee produit chimique bu fekkente ne sax mun ngeen dem fi ñu koy jaayee bu dee pour rey teeñ pharmacie am na fa hmm. bu fekkente ne ay produits yoo xamante ne la pour rey yenn yi boo demee ci ay kenkaay euh, wala yeneen lieu wala grande surface yi ñoom dinañu ko am nga liir bu baax a baax a baax mode d'emploi binduñu ko juste pour ñu sànni ko ci mbalit bi mm-hmm. dañ ko bind pour nga liir xam yow yan précaution ngay jël avant ngay utiliser produit bi mm-hmm. souvent dañuy xaw a dëgër bopp préféré jënd loo xamante ne yomb na si mbedd bi bon mm-hmm. c'est accessible pour tout le monde mais quand même voilà yomb na c'est mais franchement bu fekkente ne yenn danger yi lañ ci lañ ciy courir. Hmm. Euh, je que même autorités yi war nañ ci jël ay précautions ba yenn produits boo demul fi ñu koy doo ko jënd te boo eggee ñu expliquer la ko ba ñu mun a éviter yenn moox yi nga xamante ne mais yow yow mi koy jaay tamit war nga see am ab éducation bu ndaw lu mu tuuti tuuti nga war a xam lii pour lan la ko defee nga mën koo expliquer nit ki parce que en général am ñuy jaay yii nii dañ koy bind si lang boo xam ne sax ñoom xamuñu langue boobu noonu xam nga sa fa la loolu tamit am daal wóorul di moytu bu ma doon lire ma gis lépp chinois lañ ko bindee te ñu ngi au Sénégal c'est pas tout le monde qui lit le chinois mhm. ma ne peut-être warul normal warul mën a dugg si dëkk bi ba nit ñi di ko utiliser parce que mhm. xamoo composition bi mhm. xamoo ban nit moo ko war a jël parce que am na antécédent yoo xamante ne boo ko amee comme par exemple nga asthmatique wala wala wala nga diabétique am na produit yoo xam ne waruloo ko jël mais boo comprendre langue bi ñu ko bindee da koy jël utiliser ko nu ni nga xamante ne même sur même sur Facebook doguma la j'ai vu ay nit yu defar seen propre xeesal euh, dañ ciy jàmb donc dosage bi xaw ma ndax xam nañ bu fekkente ne par exemple dosage yi respecté woo ko mun na mm. am lu ñu tuddee réaction parasite mm. réaction parasite nag mun na produire loo xamante ne à la base nekkul woon yow loolu ngay defar mm. mais beneen molécule lay créer boo xamante ne nit ki bu ko dugalee ci organisme am mun na ko gaañ donc yooyu yëpp ñi koy def am na minimum de formation boo xamante war nañ ko def pour mun a doser produit yi comme il se doit balaa yeneen nit di ko utiliser mm. ndax yaram moom lu ci xas ba dugg wala loo xamante ne laal na sa peau nekk produit corrosif mm. balaa ñu lay faj dina am dégâts la defaral euh, mm-hmm. hmm, euh, a mm-hmm. produits ay produits euh, chimiques wala loo xamante ni daf ñoo xamante ni pharmacie ay pompe yi nga xamante dañ koy pompe pour mbóoti yeeg mm. insectes ñu koy pompe seen bopp yi ah pour ah, justement doog na ñu gis nga il paraît que produit bi nga xamante ah moom la bi décédé ci flacon bi dafa am ay mbóot ay gunóor ay yoo moom la ñuy jël si biir flacon bi fii xam naa il s'est que non xam naa dafa ne waa teeñ teeñ ak la ko jaay bu la nee pour yow da ngay jël rek mais moo tax et bi la ñu war xool aussi nan lañ koy combattre parce que nit yi dañuy ñëw di jël ay initiative jàpp ni garab li ngay naan rek la alors que loo diw sa sa sa yaram wala sa muy karam waaw parce sa deret lay dugg directement exactement donc c'est la même chose mm. di naan ak yooyu tam war nañ ko xool ba pare Pape Cheikh bu fekkente ne yow respecté wuloo physiologie bi mm. mun na nekk poison si yow mm. waxuma laa loo xamante nag produit toxique la dañ ko def pour rey ay insectes nga war a xam ne luy rey insecte ça doit être du lu du dina nekk loo xamante ne lu dangereux la donc produit chimique produit bu ñu mun ci utiliser ñu dimbali ñu rek ngeen utal ku leen liir leen liiral euh, li nga xamante ne moom mooy euh, papier bi muy àndal mu liir ko bu baax expliquer leen ci yan condition ngeen ko mën a utiliser même bu ngeen mënul liir ut leen ko leen ko defal parce que franchement ñu toog ba doomu aadama gaañu si ñu soog ñëw di def enquête pour xool produit bi fan la jógee yooyu am na lu ko gën là benn borom xam-xam bu mag quand même qui réagit qui la chimie il suffit d'un élément euh, pour mu am réaction muy chaleur élément catalyseur bi tàngaay sax élément catalyseur la hmm. te même bu fekkente ne produit bi amul benn effet tàngaay bi ñëw jàpp ko day indi réaction bi nga xamante ne mun na indi doo xam ban molécule lay ñëw créer derrière hmm. mu gaañ la moi j'ai vu quelqu'un bu doon utiliser par exemple yi dindi poil mooy yooyu ñuy diw pour hmm. watu hmm. donc dafa dépassé euh, temps bi ñu bind ci boit bi mais xaw na ko gaañ man xam naa kan la kan la ko <laughs> on m'a raconté ça ce matin Pape Samba la wala Mass la wala Mamadou la daa sol ko pati daal ko <laughs> <laughs> mais da koo def def toog rek bi relax faf affaire ba yóbbu ko laa bi laa bi siin c'est incroyable. Euh, mais mais mais mais de toute façon. éviter di yi. Uh-huh. ci mbedd bi ñëw jaay la nii rek. Uh-huh. ñëw rek nekk marchand ambulant ñëw ne la dama lay jaay lii mooy lii mooy utilité bi. c'est pas du spécialiste loolu rek la éviter alerte baa ngi noonu. et puis en plus kuy def métier boobu tamit au moins mu am suivi formation bi war a wala dara mais tëb tëb rek mm. ñëw di. di jaay jógee ma ne suñu dëkk bi fële hmm. ñëw nag ñëw ndakaaru di jaay yooyu tamit dafa xaw moo tax Cheikh Lo woyam boobu dafay am solo à chaque fois ñuy alerté ci yenn yi lu xew lu xew ñu ni ndogal hmm. am na yoo xam ne ñu ndogal quoi te yu ci bëri ñun ñoo koy euh, ñun ñoo koy yóbbee euh, suñu bopp donc faites très attention euh, bëri na ci ay mbir yoo xamante ni daf ñuy lor ñun ñoo koy yóbbee suñu bopp yenn saa yi nit dee ñu jàpp ni ndogal la mais limite sax mënoon na fi desaat ah, bu fekkoon hmm. moytu na wala déglu na alerte nga xamante ñoo koy def merci tout cas pour ces conseils euh, bi